asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci li gën fees ci bopp yéen tey la altine may am kontante ak mbegte ñu fas yéene ànd jukkeendoo li nga xam ni nii loolu la bopp yéen yi daal di fësal ci seen xët bu njëkk li nga xam te ni nii loolu la yéenekaay yépp daanaka daal di fësal seen xëtam bu njëkk moom bokk na ci li nga xam ne ni loolu la quotidien moom ci boppam daal di nag consacré à la une tey jii ci altine ji ndaxte kat ku ne xam na ni démb di dimanche bi ñu génn ci la ñu daal di nag dem fële nga xam te ni nii mooy almadi daal di seeti kooku nga xam ni mooy Hissène Habré nekkoon fi président wu Tchadien ñu daal di koy jàpp nag daal di koy yóbbu mettre ko garde en vue looloo tax le quotidien daal di fësal ci xëtam bu njëkk xam ni daal été bi moom dina tàng jër ci ki nga xam te ni ni mooy Hissène wul moom yóbbu nañ ko garde en vue te tey jii ci altine ji nag ci la ko ki nga xam ni ni mooy le procureur général di déglu boo ibbee le populaire mu mel ni ku koy feelu daal di xam ne ni kat kii di Hissène Habré moom daal di nay ndogteel li nga xam te ni nii mooy chemin de croix wam ba tey ci l'observateur daal di xam ne naka la kuréel gi nga xam te ni nii mooy bip daal di dalalee ki nga xam te ni nii mooy Hissène Habré ndaxte kat démb moom ma nga passé guddeem gu njëkk fële nga xam te ni moy commissariat bu port te nee nañ sax bu ci daldi di jugee nag bu moytuwul dinañ ko nak inculpé ba paré nak daldi koy door li nga xam te ni moy ab mandat de dépôt lolo tax sax c'est l'observateur ci sen xet bu njëkk ñu daldi def ab chronique bu nga xam te ni ñu ko tuddé chronique sulfureuse affaire de 23 ans manam affaire bu nga xam xamante ni nii bi mu dalee commencé léegi daal di nay tollu ci ñaar fukki at ak ñet loolu boobu ba légui ñu koy bëgg juger ay ndogal di ci am lolo tax sax li nga xam te ni moy le quotidien daldi xam le ni kat lolé de ab kidnapping la ndax té lo populaire mu ñuy xamal ba tay ni ñi nga xam tane ni ñoy ay njégué ñaalé ki nga xam ni moy Hussein abre xam na nañ ni kat ni ko jëlé ci kërëm nga dembu dafa daal di doy waar torop té kat dañu daal di ñëw fëgg ko mu ubbi ñu daal di koy xamal di euh, ku bokku ci kurel gu naan GIGN mo ñëwoon pour ñu fassé waxtaan jëmele ci seen wàllu euh, kaaraange bi mu daal di wàccee escalier di ubbi ci lañ juroom ñaar ñu tolloo koku daal di dugg jël biir kër gi yëpp daal koy japp ak force daal koy patam patamé lolo looloo tax ci ay di fëral daal di bëral benn communiqué di ci xamle ni kat ñoom ni ñu jëlee Hissène Habré daal teguwul ci yoon dara dafa mel ni kii di Hissène moom amul li nga xamante ni nii mooy ab liberté boppam amul li nga xamante ni nii moom mooy ab ay droit wam looloo tax sax enquête yéenekaay bi di enquête mu ngi ñuy xamal ni ñu kat ah mbir mi coïncidence la wala lu mu doon ndaxte xamle na ni kat ginnaaw bi fii ki nga xam ni nii mooy Barack Obama jugee teguñu ci lu dul ñaari fan rek ñu daal di arrêté ki nga xamante ni nii mooy Hissène Habré mu daal nekk nag jalon bu njëkk ci li nga xam ni nii mooy juge bi ñu war a tàmbali pour jëmale ko ci nga xam ni moo doon président wu Tchad yi ba tey li gën a fës ci bopp yéenekaay Le Quotidien mu ngi ñuy xamal ni kuréel gii di waaye naa maar nag dañuy daal di fas yéene dugg nag ñu ngi ah, ñu ngi laalamte ne ab dugg gu ñu fas yéene dugg daal di participer ci élection locale yi ñu dëgmal ba tey ci la Populaire mu daal di séq ak waxtaan bu yaatoo ak ki nga xam te nii mooy Malick Nawel Seck si seen xët bu njëkk xam leen ne ni daal kii di Malick Nawel Seck wax na li ko naqari lépp ba tey ba tey li gën a fës ci bopp la Le Quotidien di ñu xamal ni kat ginnaaw fan yi ñu génn Sénégal moom Dakar plus particulièrement dafa manqué woon ab gaz manqué bu metti képp ku doon jigéen sonnoon nga ci lool waaye nag mu ñuy xamal loolu dem léegi mu dakk ndaxte kat lu tolloog ñeenti bato daal di nañuy teer démb ci pooru Dakar bi ba tey ci festival bi nga xam te ni nii ñu ngi ko duppee woon trophée francophonie daal di nay jeex waaye nag xamle nañu ci juróom-ñeenti trophée yu tegoon Sénégal daal di nay jël juróom ya ci mel ni euh, Moussa Touré ak euh, filmam boobu mu tuddee la la pirogue ak ki nga xam te ni nii mooy Allé Gomis ñoom daal dinañ ci ràññeeku loolu ba tey li gën a fees ci bopp yéen kaay yi ñu xam ne ci le quotidien ni kat ajjuma ji ñu génn ñi nga xam te ni nii ñooy ah, musiciens yi ku ni Thione Seck ak ay groupam daal dañ doon def li nga xam ne mooy ab waaye nag daal di dañuy ni kat te xam ne dañ ni kat bu fekkee dafa mel ni lu am ay par parloo ndaxte kat bu fekkee ni li nga xam ne mooy communication FIDAK bi ñoom lañ ko joxoon seetlu nañ ni kat seen musiciens yu bokk ci groupe Futurs Médias wala sax ñu bokk ci Prince Art ñooñu rek ñoo fa doon produire loolu tax ku ci mel ni Thione Seck Dadi Bibson ak nga xam te ni mooy Idrissa Diop daal dinañuy yi dafa a jeex ci musique sénégalaise ndax tey kat du ñu daal di nangu kenn ci benn groupe rek daal di jël lépp aakimoo ko au détriment des autres li gën a fes ci bopp yéenekaay yi ci xibaaru jamono ji maanaam fait divers le populaire di ñu xamal ni ab xeex bu amoon ci guddi gu di xaaja guddi daal di nag boole woon ñi nga xam te ni nii ñooy supporteru Eumeu Sène yi ak Modou Lo fële fa nga xam ne ni mooy cité Djily Mbaye ci samedi gi ñu génn ñenn ñoom daal xeex nañ fa xeex yu metti li ko indi lu dara lu dul nee kii di Pam ngoom daal dafa daal di dagg li nga xam te ni nii mooy benn banderole bu waa supporteru euh, Modou Lo yi bindoon tafoon foofu ca angle ba bindoon ci Modou fépp Modou ko ñëpp yëg ko waa groupe bu Modou Lo daal di jote groupe bu Eumeu seen xeex mu nekkoon bataille rangée xeex bu metti boo xamante ni ni ña nga xam ni ñoo dëkkee woon daal ca cité boobu guddi googee jaaxle woon nañu trop trop li gën a fës ci bopp yéenekaay yi ci xibaaru tàggat yaram yi boo ibbee l'observateur ñu ngi daal di seq waxtaan ki nga xam te ni nii mooy Balla Gaye 2 moom de mu moom daal nay pare ba tey ci ngi seq ak waxtaan ki nga xam te ni nii tamit mooy Tapha Tine moom nag mu ngi xam ne mu ngi ah, dina revenir en force ba looloo tax sax suñu làmb daal di ñuy xamal ni kat Eumeu Sène ginnaaw ko dal bi mu ko dalee daal di nay xam ne ni bi nga xam ne nii Eumeu euh, attitude bi nga xam ne nii kii di Modou daal dina koy am daal tax na mu comprendre li tax ki nga xam te ni nii mooy Balla Gaye 2 bëggatu ko sax croisé looloo tax sax ki di Balla gay 2 moom wax na sax suñu làmb xam le ne daal moom bëre woon na fii te bëtam amoon na ab essence loolu rek mu doon ay mbir yu mu àddu woon jëmale ko ci laaj bi ñu ko laajoon jëmale ko ci gaañu gi nga xam ni nii kii di Eumeu seen daal di da koy gaañu ba tey suñu làmb ñu ñuy xamal ni kat kii di Tapha moom daal di day pare nag pour daal di jàkkaarloo ki nga xam te nii mooy Mouhamed Ndao Tyson suñu làmb tamit du ñu xamal ni kii di la donking de l'arène maanaam Gaston Mbengue daal dinay décroché combat bu am solo bu war a am ci diggante ki nga xam te ni nii mooy Ama Baldé ak ki nga xam te ni nii mooy Malick suñu mbokk interne di fi lañu ñu naroon a ndar keppee li gënoon a fees ci bopp yéenekaay yi wante balaa boobu. ndekete yoo ndekete yoo bi nag moom dafa daal di doy waar ndaxte kat le populaire moo ko fisal xamle nañ ni kat jigéen ñooñee ñu am habitude jaaykat yooyu sax ñu am habitude du gis ci stade yi ñuy jaay ay crème ay ndox mu sedd ay boisson bu fekkee combat am na wala football fële ca stade Demba Diop nee nañ daal ñoom ba leen ta jaaxal du dara ndekete ñooñee est-ce que ci jaay ab boisson rek la ñu yem ndaxte kat ñoom nee nañ seetlu nañ benn mbir bu doy waar keroog bañ fa gëjee ndaxte kat daal dina ñuy gis benn nit bu ñëwoon assister li nga xam te ni nii mooy événement ba fa amoon kuy jaay ndox romb ko ñu daal di xoolante waxante ba jëlante ay numéro ñu daal di xamle ni kat xëy na ñooñee seen jaay ndox googee dañuy ci dragué waale uf waxuma ko waa populaire daal ñoo ko wax ma eggee leen ko man nag fi laay ndar képpee li gënoon a fees ci bopp yéene gaay di leen jox dig daje fan yi di ñëw di leen ñaanal njaxtalu ay bisub jàmm di leen ni Daara Dina fi teew jërë ngeen jëf